Euh, maa ngi nuyu di ziar euh, suñu xalifa euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir di ko ñaanal suñu borom yàlla yàggal ko fi moom jabootam gépp ak taalibe di nuyu di ziar sëñ Ahmadou Badawi Mbacke Falilou di ko ñaanal gudd fan moom it ak wér moo ko jabootam gépp ak taalibe yi di leen nuyu yéen waa ak Actu 24 di leen ziar di leen ñaanal jàmm ju baree bëri di nuyu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Euh, di leen ziyaar di nuyu jigéenu bàmba yi mm-hmm. di leen ñaanal jàmm ak sutura ak xéewal gu bëree bëri mm-hmm. euh, di rafetlu bu baax a baax mm-hmm. euh, seen invitation bi ngeen ñu invité fii biir Actu 24 di ko rafetlu di ñaan yàlla lépp luñ fi wax rek yàlla na méngoog euh, bëgg-bëgg sëriñ bi ndax loolu rek euh, moo ñu itteel. Mm-hmm. jërëjëf euh, Mati wax naa ko sànq ci bi may tàmbali yow yaa jiite kuréel gi ñuy wax jigéenu Bamba yéen tamit yéen a yor liggéey bi nga xam ne ci université bu Touba bi restaurant ba nu fay tabax lan mooy jigéenu Bamba boo ñu ci bëggoon dikkalaat ak ñi nga xam ne peut-être xamaguñu ko bu baax. waaw Ousseynou jigéenu Bamba li ko tax a jóg xalaat la rek bu nga xamante ni. Euh, dañu ko doon xalaat amoon ko yéene ci euh, sëñ euh, Muntaxa Mbàkke Bachir ndax gis taxawaayam rek bu rafet lool lool lool ci diine ji duma wax sax ci tarixa bi mais ci diine ji laay wax ci ci lislaam mm-hmm. bëggal ñu lu baax ñun jigéen wax dëgg yàlla ñu toog rek di xalaat ni ne sëñ bi de wax dëgg yàlla jigéen ñi ameel nañ ko njukkal amoon nag yéene bu baax a baax seetloo nga xamante ni yaakaar nañ ni dina seddal xolam mm-hmm. ñu bëggoon amoon mbébét def ko bu ñu ko mënoon kenn nit def ko euh, mu doon dem ba ca université bi nga xamante ni mooy yitteem tabaxal ko fa restaurant bu mag ba mu yegg ñu jébbal ko caabi ji gannaaw nag euh, doole dajul suuf te xëy na loolu lépp kenn mënu ko euh, gannaaw bi ñu ko doon waxtaanee waxtaan bi dem ba ci sëñ Ahmadou yi mu sëñ fàllu sëñ Ahmadou Badawi rafetlu ko lool lool lool daal di ñuy woolu laa daat laajaat nu xalaat bi ni mu dikkee ñu wax ko ko Euh, ci la nag rafetlu ko lool lool wax ca wax ju am solo itam nee na ma de xalaat bi de ba nga ko xalaatee rek ak yéene ji lala ci sëñ Touba gërëmoon boobu la sëñ bi bégoon mu doon wax ju daal xel nga nga xamante ni chaque jour day ñëw di ñëwaat ci suñu xel wax dëgg yàlla euh, mu daan ne dina ko eggee sëñ Muntaxa gannaaw bi bi ko sëñ mu Mountakha déggee bi mu ko ko eggee wax dëgg yàlla euh, sëñ mu Mountakha mu baax mi rafetlu ko lool daal di ñuy woo benn àllarba mhm. le 6 novembre euh, ca këram gi fii ci kër sëñ Touba gi. ci lañu ñu joxoon ndigal gi nag ne ñu dem leen ngeen doxal ngeen tabax ko te xam ni euh, restaurant bi moom euh, université bi moom jigéen ñee ko moom waaw moom loolu la moom ok donc idée bi foofu la jógee muy euh, yéen a toogoon di waxtaan mu jógee ci yow entre jigéen ngeen xalaat ne war ngeen def dara ci jigéen man la ak sama beneen caami ñoo toogoon nii waxtaan mm-hmm. ku tudd daam Baye faal mm-hmm. maa ngi koy ziar bu baax a baax di ko mm-hmm. gërëm di ko ñaanal jàmm ak sutura bu bëree bëri. donc kañ ngeen jotoon ndigal ci wàllug liggéey bi. Euh, ñu ngi jotoo ndigal la 6 novembre. benn 6 novembre. ok euh, liggéey bi université euh, bu toll ni Touba lu toll ni tamit waañ bu mel noonu xaalis bi dañ ko estimer ci ñaata cest diir li ñu ko war a tabaxee ak diire bi ñaata la. waaw bi ñu ñëwee ci keroog le novembre boobu gannaaw bi ñu sëñ bi joxee ndigal li ne leen dem leen taxawal ko. Euh, sëñ euh, maam Thierno mu sëñ Moustapha Bassirou maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom it euh, ci la ñu présenté ay palan wan ñu plan université bi wan ñu restaurant yi fi mu féetee waaye nag du benn restaurant mm-hmm. mais ñetti restaurant la mm-hmm. mu présenté ñu benn restaurant bu 89 millions mm-hmm. présenté ñu beneen restaurant bu 120 millions présenté ñu beneen restaurant bu 800 millions léegi nag eh, gannaaw ak tàmbali la woon te boo dee tàmbali da doo jógee ca njombaxtal mhm, da tàmbalee ci bi gën a yamamaay mhm. daal di nag am yéene yéeg ba ca kaw loolu moo doon yéene bi ma ne ko nag eh, gannaaw nii eh, nga ma ko présenté te it ñu nit dañ ko bëggee doxee dañ ko bëgg a doxee yéen ci anam bi ngeen di doxee yéen mhm. ci kaw ni ngeen ko bëggee rek ci lañ ko bëgg a doxalee yéene bi rek lañ am bëgg leen a fekk si pour mën a def suñu participation ñu ne jigéen ñi ñoo tabaxal euh, sëñ bi mm-hmm. restaurant bi ci université bi mm-hmm. waaye ci kaw yéen ni ngeen ko bëggee rek lañ koy defee mm-hmm. waaye euh, nañu jël bi gën a ndaw buñ demee daal di koy tàmbalee daal di sensibiliser woo jigéen ñi ñëpp ñëw bu ko defee ñu daal di euh, doxal lool. mu toll ci quatre-vingt-neuf millions loolu naal bu rëy la ndax da ngeen a jog ci xeer wala xeer dafa nekk ci seen poos joggiwuñu ci xeer xeer nekkul suñu poos ndax xeer dafa dëgër te yëfi sëñ Touba dara dëgërul mhm. euh, boo gisee ñu am engagement bi dañoo doon ay jullit mhm. doon aussi ay murit mhm. euh, yaakaaruñu ko dul sëñ bi te li ma sëñ bi waxoon rek mbiri sëñ Touba tàmbalil am yéene ak xol bu rafet sëñ bi mooy yeggaleel boppam. Mhm. kon amul leen benn fonds boo xam ne euh, fi mu toll nii am ngeen ko pour 89 euh, millions yi ngeen matal ko. ba keroog ñu doon am digal li amaguñu woon benn fonds. Mhm. dañ doon ñaan yàlla rek am digal li mhm. ak yéene bi bu ñu ñëwee daal di xool nag nu ñu organiser. ci suñu biir ba mën a taxawal association bi ba mën a seet bu dee ay cotisation la bu dee ay jaayante ay barkeelu ak lu mën a doon. Euh, daal di daal di daal di doxal pour mën a am fond bi mm-hmm. waaw du tere itam euh, dinañ dugg seet ak les moyens de bord les mm-hmm. bonnes volontés mm-hmm. lépp rek ci kaw taalibe ak murit ak yi fi jullit euh, kuréel gi ñaata membre moo ci nekk ci jigéenu Bamba jigéenu Bamba instant bi mënuma estimer carrément ñaata membre ñoo ci nekk ndax dangay jël ay carte de membre distribuer ko mais doo amagum revenu ndax li fi xew ci jamono bi gàllankoor lu bëree bëri mais man ci sama jëmmi bopp li nga xamante ni xayma naa ko te ma xam ko mu leer ma fi mu ne war nañoo toll ci six cent cinquante personne six cent cinquante personne mais nag damay damay damay bañ a xuus dëgg-dëgg ndax ba ñëw bi fii daf maa bett voilà mais euh, ëpp na ko nag mhm. ëpp na ko bu ok léegi est-ce que yéen li ngeen di am da ngeen ko xalaat rek ci euh, membres yi nga xam ne ñëw bokk ci kuréel gi ak seen li ñuy cotiser ak euh, ci ñaata la toll fekkee ne mën nañ ko xam c'est-à-dire euh, carte membre bi ñaata lañ koy jaayee. la carte de membre yi ñu ngi koy jaayee 3000 francs pour jigéenu Bamba yi mais defar nañ ay carte de jàppale nga xam ne dañ koy jox suñu caamin yi góor ñi euh, góor yi Bamba yi. Ah, kon affaire bi yemul ci jigéenu Bamba kese. fi sëñ kenn du ko xatal ndax xatul. Mm-hmm. kenn du ko xatal waaw ndax xatul mm-hmm. euh, boo tax ñu def ay carte de membre jàppale góoru bamba yi ñoom it ñu daal di ñëw jënd ci quart membre yi tamit am ci badge yi di di jaay ci reçu yi. Mm. comme ñun ni ñu koy defee. Mm. di di indi recette bi ñuy ñuy ñuy. est-ce que yaatal ngeen ko ba ñi ni nga xam ne ñoo nekkee ci biti réew euh, buñ ci bëggee barkeelu itam mën cee barkeelu. voilà euh, foofu foofu la euh, xaw a taggatémbee tuuti ndax bi bi reçu yi di génn ak carte barkeelu yi ak carte de membre yépp yu war a dem ci diaspora bi ba ñu paqueté ba emballage ba dara desul pour mu dem dem na ba yegg dakaar ci lañ tëj frontières yi. Mm. Euh, ak Covid 19 bi. Mm-hmm. Euh, waaye mm-hmm. loolu ndogal la bu ñëw. Mm-hmm. Euh, yàqul dara ci suñu pas-pas. waaw ba instant bi yooyu demagul. mais itam ñu ngi am yaakaar bu est-ce que ngi xalaat yeneen i raccourci parce que gis nañu ni Covid 19 bi daanaka bloqué na lu bari mais raccourci yoo xam ne même Covid bi bu amee du leen tere liggéeyal Serigne Touba. Covid 19 bi yàqul dara ci pas-pasu waaye dari jamono bu doxee da ngay da xool ne jamonoy doxee tey it ñu fàttaliku sëñ bi dafa joxe woon digal mm-hmm. dafa yëkkati woon ay koppar yu bëree bëri euh, jox euh, état bi ba pare état bi ab tamit muy docteur yi dañu mm-hmm. joxe woon euh, bi sëñ bi joxee ndigal li mm-hmm. jàppale gouvernement bi dafa am ndigal lu ci teg ne nañ topp li docteur yi wax waa waa waa santé bi wax ko ñu def loolu ñu nit euh, li sëñ bi wax rek loolu la ñuy def mm-hmm. ne docteur yi neen toog leen seen kër mm-hmm. ñu nit dañoo toog mm-hmm. ndax euh, lu mel ni bi bu mel nii kenn xamul ku ko yor ak ku ko yorul bëgguñu woon tam di def déplacement yi di dem ci ay kilifa ñu lay rece euh, recevoir wala wala ngay dem di di waa àdduna kenn xam mais est-ce que yéen ngi sóoraale tamit diire bi ñu leen jox deux ans yi at gaaw na de nelawuñu nag nelawuñu day nekk à chaque fois day nekk di tourner suñu suñu xel wax dëgg yàlla des fois sax nag mu xaw a tee nelaw tuuti mm-hmm. waaye buñ toogaatee xalaat xam ni mm-hmm. rek li ma la waxoon commencement ba ay mm-hmm. ay murit lañ euh, ay taalibe lañ euh, te euh, defuñu ko ngir suñu bopp dañ ko def ngir sëriñ bi la ma sama rakk wax rek mu ne ma lan moo tax nga engagé engagement bu rëy bi hmm. ma ne ko engagement bu rëy bi engagé lu ma ko sama bopp bu doon lu tuuti hmm. ku ko dégg da ngay jàpp ne sama bopp rek la waaye sëñ bi daraam tuuti hmm. parce que d'habitude gis ñu woon euh, xeetu engagement yu mel noonu jigéen di ko jël donc voilà rafet rek yéene bu rafet nit ki boo amee euh, yéene bu rafet ak chaque jour ngay nga xalaat lu lu positif jarul ngay tiit jarul ngay ragal voilà ñun mësuñu ci am benn benn tiitu non non mosuñu ci tiit dara Euh, xanaa rek di ci ñaan yàlla mu musal ñu ci njuumte waaw mm-hmm. ndax euh, jamono metti na mm-hmm. euh, te it fakastal dafa gaaw mm-hmm. loolu rek la ñuy la ñuy ñaan yàlla mu musal ñu ci njuumte daal mais nag lu jëm ci liggéeyu sëñ bi moom ñun amuñu ci benn yoon lu ñuy tiit. am ngeen ci xel mu dal bu baax a baax. am ci xel mu dal donte donte nekkul ne dañoo yor li nga xamante ni loolu moo fi nekk mais ñun dañoo jàpp ne. suñ ci góorgóorloo am am yéene bi ak pas-pas bu rafet doxee ci doxin bu rafet sëñ bi dinañu fekk si mu gaaw wala mu yeex sëñ bi. voilà sëñ bi dinañu euh, fekk si gis nañu aussi mati euh, jigéenu Bamba xëy na am na ay valeurs yu xam ne yéen a ngi koy incarné gis nañu ne aussi tamit suñu jamono ji yàq na lool euh, ban message ngay lancé jigéen ñi sa moroomu jigéen ñi nga xam ne ñoo lay seetaan. waaw message bi may lancé jigéen ñi méttiwul ndax ñun déjà li ma wax rek jullit moom. boo dee boo dee topp li nga xam ne loolu la sa diine wax même même même ku dul jullit ñun ñoo jéggi rek lu ñu lu ñu lu ñu doon euh, ak it euh, bañ a dégg li ñuy wax mm-hmm. waaye waaye waaye ku ci nekk rek ka nekk sa ginnaaw di la digal lu baax ak la lay dugal àjjana liy defar sa fii ak liy defar sa fee rek la lay la la la lay wax mm-hmm. ndax gisuma benn benn benn këru diine bu nga xamante ni dina digal nit waxuma sax jigéen kese mais dina digal nit mm-hmm. loo xamante ni dina ko indil safaan fii mm-hmm. ak fa ñu jëm kon ñoon li ñu war mooy di def li nga xamante ni moom la ñu suñu diine may di ko wax di ko doxee ah, donte nag xëy na léeg njuumte mënta ñàkk waaye bu ñu juumee nañ delluwaat suñu borom ndax juum yëfi nit la bu ñu juumee nañ delluwaat suñu borom supplier wu jégalu rus ci moom toroxlu ci moom ñaan ko waaye nañuy góorlu ñun itam di def suñuy farata di def xam farata yi xam sunna yi xam li ñu war a def ak li ñu war voilà c'est euh, xam naa ñi ngi ci euh, catul waxtaan bi gis nañu ni Covid 19 bi wax nañu ko euh, fi mu toll nii sonal na àdduna bi egsi na ci Touba en tant que jigéen ñi nga xam ne yéen yéen ay yar njaboot gi ban message ngay wax foofu ci waa Touba yi nga xam ne ñoom ñoo lay dégg wala sax waa Sénégal yëpp. waaw message bi duma ko yemale si waa Touba rek ndax Touba dafa nekk si biir Sénégal waaye comme maa ngi Touba. Mm. Euh, su ma defee message bi yemale ko Touba euh, keneen ku jógee feneen ci Sénégal doxul doxul ni mu war a doxee ñëw dugal ko Touba tamit mm-hmm. euh, day day day day nduru leneen. Mm-hmm. day indi leneen aussi mm-hmm. su ko defee rek muy message bu nga xamante ni day jàll pour àdduna bi yëpp. rek mooy nañu nañu sàmmoonte ak li këru docteur yi wax ndax lii itam boo ko dee xool lu jóge la ci suñu borom. dégam nag ñi nga xamante ni euh, ñoo jiite réew mi dem nañ dem ba ñoom xam nañ ne xel dañoo loof mm-hmm. mënatuñ ci dara mm-hmm. ñu daal di far mel ni daal di ku bàyyeeku mm-hmm. tamit da ngay xam ne yëfi doomi aadama la rek ñu ñaan yàlla suñu borom moom mi ko fi indi woon ah moom moo xam li tax mu indi ko ndayit euh, sama baay nee na àdduna bi bu leen foog moom maam yàlla day bàyyi noonu àddunaam bi rek nit ñi di def lu ko neex day day laaj nag day laaj day laaj mu toog nag téye yëfam mm. defar ko ba mu ba mu ba mu ba mu ne coog mm. mm. ba mu rafet mu doog a bàyyiwaat ngeen wéyal euh, ñu jàppee ko rek punition divine waaye itam rek bu ko defee luy lépp war nañu delloowaat ñun ñu xam li ñu war a def ak li ñu warta def ñu xam li ñu war a bàyyi ak li ñu warta bàyyi te xam ni Euh, dee day bette mm-hmm. waaw te lii degam bu bu lii amul dee day am mm-hmm. waaye tamit lii dafa nekk ci loo xamante ni ku ko dégg rek sa xel day dem ci dee mm-hmm. kon avant lii di am suñu xel di dem ci dee nañu jéem a tiit daal jéem a jéem a soppeeku jéem a changer changer ji yi changer mentalité yi aussi di doxee de de de façon très positif tamit dina dimbali lu bëree bëree bëri waaw su ko def message bi pour sensibiliser parce que fii ñu nekk wax naa ko sànq comme Touba am na ci ñoo xam ne ba léegi ñi am xel ñaar ci jàngoro ji waaw Touba chaque jour dañuy am xel ñaar ci jàngoro ji li tax ñuy am xel ñaar ci jàngoro ji xam nga euh, doomu aadama euh, ak ñi ma ko sañ a wax dafa mm-hmm. dañuy xaw tuuti di dañ kumpa comme mm-hmm. gisuñu ki nga xam ni moo am jàngoro ji wala dégg gisuñu ñi nga xam ne ñoon lañ quarantaine mm-hmm. rek dañ naan euh, amul mais pour man amul benn intérêt ñu naan fii am na coronavirus te amu fi te amu fi di gàllankoor seen bopp di ñu gàllankoor te te te Touba ay caaxaan Euh, titre foncier la te te te dëkku diine la euh, kon nekkul loo nga xamante ni war nañ koo fee indi installé ko fi bëgg ko fee dëkkal ne fii la dëkk te dëkku fi euh, pour man loolu amalu leen benn intérêt waaw su fekkente ne tamit loolu am na yàgg-yàgg day feeñ te bu feeñee aussi nekkul lu nga xamante ni rafet na ci diggante ay dëkkandoo ci ay jullit ci seen biir kon ñu war a gëm ni rek kon lu am la su ko defee nañu nañu nañu nañu bàyyi xel ci geste barrière yi masque bi waaw mais am na distance aussi mhm, mhm. voilà lan ngay euh, jeexale Mati euh, waa li may jeexale mooy di sant di gërëm di ziyaar euh, Cheikh Mouhamadul Mountaha Bachir di ko ñaanal nag yàlla suñu borom yàggal ko fi lool lool lool Mbàkke Bàlla di ko ñaanal lool bu baax a baax a baax a baax ndax soxla nañ ko wax dëgg yàlla wéttalu àdduna la am nañ am nañ yéene ci moom am nañ yéene ci moom am nañ lool lool ñeewante ci moom am nañ yéene ci moom di ko ñaanal itam mu ñaanal ñu mu ñaanal ñu bu baax a baax ñun xam nañ ne bu ñaanee day am am nañ yëg-yëg boobu mu ñaanal ñu di ñaanal jullit yëpp di ñaanal murit yëpp di ñaanal jigéenu Bàmba yi di leen di leen gërëm ndax euh, ñoom boo dee xool da nga naan ñoom ñoo la gën a bëgg mhm. ñoo la ko gën a bëgg danga naan ñoom ñoo la ko gën a bëgg vraiment di leen ñaanal bu baax a baax di sant nag euh, site internet yi nekk Touba yëpp euh, maa ngi leen di ziar di leen bégee plus particulièrement euh, samay xarit lañ samay xarit lañ man vraiment dama leen a bëgg wax dëgg yàlla ndax yéen a ngi def nag liggéey bu am solo ndax bëriwul lu may dégg nit ñi di leen gërëm affaire yooyu buñ leen jàppee rek ay instruments yoo nga xamante ni ku ñëw da ngay da ngay ñëw indi fi sa activité ñu lancé la soo demee ba jóg nga bàyyi leen euh, ginnaaw loolu tamit nañ si bàyyi xel te xam ni moment bi muy difficile di dëgër yéen moment boobu lañ leen di gis loolu tam lu jar a bàyyi xel la ma di leen ci ziyaar bu baax a baax di leen gërëm ñi nga xam ne tudduma leen tamit nañ ma jéggal xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ci xol bi vraiment di leen sant bu baax ñëpp ñëpp site internet yi fii Tou Touba ñëpp vraiment ñëpp samay xarit lañ vraiment. macha allah Mati ñi ngi koy sant bu baax euh, di ko gërëm Mati mbay moom moo jiite kuréel gi ñuy wax euh, jigéenu Bamba euh, di tabax tamit restaurant bi nga xam ne rek moo nekkee ci université Touba bi nekk ndigal loo xam ne jot na ko ci xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ñu ngi koy sant baax di ko gërëm te di ko ñaanal euh, naal bi nga xam ne tàmbali na ko sunu borom eggale ko ak euh, jàmm ñu ngi koy sant baax di ko gërëm sant ko ci oyof gi nga xam ne am na ko ba wuy suñu fii ci 24actu point com ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm sant Thierno mi nekkoon ci euh, caméra bi sant Serigne Cheikh mi nekkoon ci montage bi di leen gërëm di leen jox daje incha allah beneen jotaay l'invité de la rédaction jërë ngeen jëf